Yacine. quand ils ont déclaré que. mais Ahmed jàkkaarloog Yacine gëstu nga xool euh, Yacine keroog. xoolal sa droite nga xool euh, Yacine keroog. Euh, seen manifestation bi <laughs> au niveau de Géej ndax. mu ni te nee na mbokku libu mi lay jàppale. <laughs> déggoo ma de c'est la libu qui parlait. ah ah. wow. ah. wow wow. Paasan Paasan réew mi itam xale yi. ca boog non dañu assimilé rek élégance bi ñu doon wax moo nekk noonu. waay waay waay waay coach dimbali ñoo ko assimilé. Ah, dañu assimilé nag ah. Euh, élégance yoo xam ne ñoo jógee France ñëw sax a dégg olof. ci ndey ak ci nekk ci mim réew. asma ngay waxal. waaw vraiment asma moom waaye du man mi say man mi samay wolof di leen jaaxal. asma sax garaaw dama ko day day xale la day jàng. <laughs> Ah, garaaw dëgg neexul maa la bëgg sama nijaay. xale bii bu màggee fii macha allah kii nga xam ne bàyyam lu ne la def RTS Louis moomu toog yow xam a papaay Louis yow waaw <laughs> xam nga papaay Louis. xam naa ko kay. ah xam nga papa. xam naa ko. Louis sëgg de. ndeysaan la wax papa monsieur Jandi monsieur Jandi. Jandi RTS mooy papaam. macha allah ñii mën nañoo toog ci ay télé di joxo joxo gëm la ñu ne dégguñu olof. macha allah ah. <laughs> man de jaaxle. en tout cas doy na waar ni oh. coronavirus bi doyee waar. doy na waar. mais doy na waar ni coronavirus bi doy waar ñu daal di jublu rek ci. coronavirus jooju day. moom mara détaillé tubaab yee ko tey. maam Sidi fi ñuy tàmbale. bu dee dëgg la daal tubaab bee ko tey. Hmm? waaw kay. mi ngi nii. léegi nag tribune nee na en tout cas jàngoro ji daal cas bu njëkk. Hmm. bu ñuy wax ne moom la. Hmm. <laughs> nee nañ démb lañ ko gis ci benn français. mu tiital nag nit ñi. waay lii la journal bi wax. délégation Sénégal ba demoon ca salon international de l' agriculture it. Mm-hmm. mënuñoo seetee noonu. ñëpp quarantaine. président nee nañ leen ber. <laughs> ma ko wax de. officiel yaag yëpp. man ñii di ci wax nii nii gisoon niñ ma bere. <laughs> dañ maa quarantaine tey. Euh, coach waaw kaay defal ma bii ci ginnaaw ma téeral la ci ginnaaw. ngi ne. ma ñëw la ko kaay kaay. demal demal coach. loolu da na. waaw dañ ma quarantaine di ndax li ma ciy wax. ma ñëw lonkaloo ko. ñëwal ñëwal yow. kaay lonkal ma ko waaw kay. grand place na ñëw baasa. waaw. matukaay yi nga xam ne dañu koo jëloon. mu ñu ne dama jël ko quarantaine ma nii. ba keroog mooy pare ci corona ci. yow laay waxal yow. nee Sénégal. matukaay yi nga xam. matukaay yi nga xam ne moom la jëloon yëpp dafa rate dañ ma quarantaine nii ah. dégg nga loolu yow yow baasal lépp rate ah matukaay yi ñu jëloon aéroport caaxaan caaxaan mënu fee mënu fee léegi mais Yacine wax na fi lu grand sànq ah na ba muy jógee Togo di ñibbisi Togo xaw ma Guinée fa mu tukkee yooyu ba muy ñibbisi waaw nee na moom dafa ñëw jàll ak ñamu mu àndaloon dañoo ñëw jàll kenn xoolu leen loolu loolu 15 jours ci ginnaaw la. mais man am naa sœur bu jugee. Paris yàggul une semaine au plus tard kenn contrôlé wu ko. c'est grave. ah nan la ñu yàlla dolli si. xam nga pourtant kilifa yi ñooñu ne ah non non non foofu tout est. kon waa Grand Place gis nga leen. ils ont vu juste alors. baax na. atia maam si di ñëwal ci ki ci topp ana lan la wax tey moom ñëpp ko oraa la direct news nañu. <laughs> professeur euh, euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr. waaw. instant bi muy wax naan gis nañu benn cas professeur Seydi nee na ñaara nga faat moo tax journal bi ne dafa am xoolal xoolal xoolal taf yëngal bi. waaw làmbatu cacophonie ci wàllum communication. wallaay personne ne comprend. wallaay ñii nee nañ benn ñii ne ñaar ñii ne benn ñaar nee nañ faj nañ ko ba pare kañ la fi tàmbee kañ lañ ko faj. waaw lii jaaxalul nit ñi ñëpp lañ war a quarantaine la CNK ñëw ak ñun ci. Sénégal naka ngi nii. wallaay. journal bi nee na touché mais je pense que pas coulé quand même. ah touché mais pas coulé. waaw. mais touché. waaw mais touché. mais pas coulé ci ci li ñu wax. waaw ci li ñu wax ñii dañoo aay de Paasan est-ce que corona ji dugg na ci réew mi. <laughs> beaucoup se posent cette question ñu bëri laaj boobu noonu ñoo ngi ciy xalaat daal ci xel ñaar. situation politique bi daf leen défavorable de. waaw. te ils ont réussi aujourd'hui à mettre à la une de tous les journaux sans exception tey amul benn journal. bu wax politique bu bind lenn ci ñoom ak seen i scandale yu bari. Mm-hmm. ak seen coowal parti. Mm-hmm. ñëpp tey corona corona ji lañ bind. tonton daa ay est-ce que corona am na ci mais mais nag Ahmed xam nga bëlde bëlde bëlde. waaw maanaam. lijjanti. waay waay waay pexe pexe du raw xam-xam. waay ma ne corona ji sax dafay mënul toog ñeenti at. mais kon dañuy inspiré parce que mettre tout euh, tout ce scénario là en place est-ce que c'est possible. eh yow xanaa xamoo luy état fexe nañ ma quarantaine ma man nii <laughs> xoolal ils l'ont réussi heure yi daan na fekk may def fii ci plateau beeg yooyu. quarantaine nañ ma man nii nga xam ne sama yoon nekku ci damaa xëy rek dégg corona te xoolal liñ ma wërale eh. ça c'est l'état <laughs> eh. ça c'est l'état ñoo ma dugal fii ma dugg tey vingt 24 heures yéen kaay ñëw ak ñun ci mais ñi nga xam ne dañoo laale ak gars yi. gars yi ñu ngi ah, leen di. waaw ña ñu romb ak ña ñu fekkee. waa léegi ñooñu anañu autorité sanitaire yi ñi ngi wër ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci vol Air Sénégal international du 26 février 2020. mais Ahmed Ahmed. waa xam nga loolu yëpp cinéma la paasan de gis nga. xam nga ñu wàcc ci roppalaan gi jour boobu yëpp. waaw xanaa ñooñu ñëpp bi ñuy dem fichier nañ leen léegi Ahmed dafa am benn affaire bu si am ñun yàgg nañoo jaar aéroport nag non dafa am benn affaire bu si am waaw peut-être loolu loolu loolu vérifié woon nañu dinañ vérifié waat waaw dañu wax ne le ah. vingt six boobu amul avion Air Sénégal bu jógee Paris ñëw Sénégal waaye li ngay wax waaw ah, loolu loolu loolu loolu seen TV lañ ko waxee seen communication bi la. ils amul avion bu jógee Paris ñëw Sénégal xëy na nag mën na jaaree feneen. Macky dina leen rayete rek dañ koy dugal ci goutte rek. ah day génnee communiqué fekk man Macky daal donc le 26. ah donc le 26. amuloon roplaan. roplaan bu wàcc Sénégal jógee Paris ñëw Sénégal. kan moo def vérification boobu. ah man ma enquête. ma ah. enquête sama enquête bopp. ah Assane yow li ngay wax ni garaaw na ah? maa ko wax fii. léegi lu tax ñu may quarantaine man. ah xam <laughs> le 26 daal nee nañ man nee nañ ma nee nañ ma ah. le 26 amul avion bu jógee Paris nekk Air ñëw Sénégal ndax vol bi dañ ko annulé yéen a ngi fàttaliku bi ñu nee dañu am ay sénégalais yu bloqué dans les aéroports là vous vous le 26 il y a le 26. non loolu loolu moom foofu ñu bu baax a baax. waay waay waay Ahmed. Asma naam. ñu ne amul. <laughs> ne amul de. ci cas bi paasan ay enquête am man maa laajte ñu wax ma ne ma. ku la wax ak ku ma wax ak kan moo am maqaama naan ma ku la wax ma lay wax. ah déglu ma le 26 ñu ne ah. ma amul. avion bu doy nga ma yow doy nga ma yow da ngaa crédible doy nga ma wuy ma li nga ma doyee tax kenn dootuma quarantaine. alhamdulilah. <laughs> dina def quarantaine ma. ah <laughs> non mais dina dina. il est magnifique. ok Ndala. <laughs> oui léegi nag léegi nag gars yi bu ñu dégloo après ñu dem. vérifier ñu enquête. liberté provisoire. <laughs> ba kenn quarantaine nan ma. mbaa dañuy tëbalaale le deux. dañuy tëbalaale le deux. waay man man néew man non. Ah. bu ma yëngal waay. <laughs> plan national de riposte bi nga xam ne lancé nañu ko. nee nañ génnee nañ un milliard quatre cent e quelques milliards. un milliard Macky Sall daal dinay santaane fépp fu koppar nekk te farata tax koo jóg nañ ko génne. waay. waaye benn médecin itam nee na buñ ko garaawal yenn garaaw yu euh, dramatiser ko euh, di exagérer corona fu mu dugg tey ñëpp dee dégg Sud Quotidien nañu Dakar daanu français bi jël na ko indi na ko fii sa bokkul ma tubaab yi leen. te bëgguñu woon jëli Sénégalais yi ne fële Wuhan indi leen. waa kenn jóge par indi ñu ko <laughs> c'est bien. acca <laughs> waaw kay discours à la nation les hôtes vivants parmi nous <laughs> benn oto ngi nii étranger parmi nous. indil nañu ko journal bi nee na dañoo rax journalu euh, euh, Madiambal Diagne bee ko wax ñu ngi nii waa ji ñëw na fi indi ko aca maam siiri l'observateur traceel ñu fi waa ji jaar eh. mm. ndekete gis nga waa ji région bi gën a contaminé ca France fa la jóge fa la jóge salaam waaye man de li nga wax ni fi mu ne nii man man sama revue de presse bi kon yàqu na hmm? màggalu xam ngee gàmmu tey ba ziar généralu Tiwaawan bi kasu rajab appelu laayeen yi yépp instant bii nag bu yeboo nag lu waaye mën a ñaan nanga ko ñaan corona ji ak fi nit ñiy daje tey fii kenn du fi wax politique source a nañu gis nga talaata tey tey jii dana mel ni keroog ba ba jaaye mbaam mi ne noppi du dem ci Abdoulaye Diouf saar tey rek lay dee dana sonn de yow ñëwal yow source a wala da ngaa bëgg lobs dégg nga mi ngi nii bu dajeeg partenaires yi ca ministère am ab Abdoulaye Diouf Sarr dana dem Wakaam daje fa ak waa éducation national xam naa da leen di ñaax bu fa jógee ma nga jëm ca conseil national de sécurité day am tey bu fa jógee ma nga jëm poroxaan ngir sàkku ci murit yi diplomatiquement yar rek ak tey topp ndigal ñaan leen ngir ñu dàq poroxaan ci mhm. loolu nag coow la nag boobu ak poroxaan ji ba déwén ndax nit ña fa ñuy dajee tax ministre ba nag bu fa jógee dana dem yoof bu fa jógee nag ci lay wër ñi nekkoon ci avion bi te bokk ak français bi mais man li ma jaaxal lii non mais revue de presse amatul sens. c'est compliqué. non maam Siri nag ndekkee goo l'observateur ba muy ñetti yoon. surtout yéen a kaay ñëw ak ñun ci. corona bee ko tiital. mais mais yow chauffeur bi jëlee tubaab bi foofu fi mu nekk nii. waaw. taximan compagnie Cpro bi waaw yóbbu ko aéroport it njabootu tubaab bi ñëpp lañ quarantaine fi mu nekk nii. Macky Sall nee na ñu àndoon ak ministre ba yëpp nañ leen quarantaine. ana ministre ba. Samba Ndiobène Ka. waaw dama koo gis. quarantaine nañ ko. Ah. bokk na ci quarantaine. Ah, Samba kay moo jiite voilà. baax na yàlla na yàlla defal leen jàmm suturaal leen dara bal leen dal. waaw waaw waaw enquête yéen kay ñëw ak ñun ci gars yi nag li ñuy sàkku daal surtout président loolu wax bu gars yi paniqué. Hmm. sénégalais nag dañoo joge de. tey nga gis si ay masque yoo xam ni. di nga gis ko jël sax leket këpp ko ci bakkan léegi sa ko yéene kaay dañu français ba nag yéenoonoo doomu jàngoro ba indil ñu ko masque yaa ngi nii mais nag professeur Moussa Seydi dalal na xel yi parce que nee gis nga feebar bi duriwéen bi moo ëpp waaw loraangeem bi hmm. parce que imagine nee na téeméer yoo jël ci ñu mu dugg nii mais kenn sax mën na cee bañ a dee waaw zéro virgule pour cent ci patients yi te 40 ans jëm kaw de tout tànk yooyu toog foofu moom yéen doo leen corona. Hmm. corona ji kay xanaa ñun ñii nga xam ne suñ ndoxu oom yi jeex na yóbboo ñuy moytu tey raxasu buñ doon ñoom ñoom Pa Assane ak kot su am nga 40 ans. waaw ah. raxasu de. ah non dafa naan dama niru xaleel rek. ah mu ne dama niru ko de. déedéet dama ne. <laughs> mooy su rek sa ñeent fukki at dugg na. loolu maa ngi ko ñëwoon ci corona ji. Eh. exclusive yéen kaay nañu makkee ngi nii. Eh. tonton de tey daa doon soldat. tey moom affaire bi da ko jàpp sax. waaw eh waaw. c'est nag c'est gis nga kii c'est que nii nag ñii la jàpp. ndeysaan dafa may fàttali kii. Euh, président Libéria ba ndeysaan Samuel Doe. wala Thomas Sankara. Samuel Doe la may jox nii ndeysaan. del bàyyi sabotage en face. non dañu eh, niñ ko sottali. déedéet déedéet déedéet c'était un grand Do. bu ko nuroo léegi moom nag yow eh, it. tonton kay tey moom fii ba corona ji jeex moom laa àndal. bu ko kenn bi moom. man de ma gisee mu sol tenue militaire ni muy tiite. maa ko njëkk a gis mu sol militaire ba ba ba tiwo ba toje. concentration. laa ne kii kay lii tax muy wàññi gars yi. acca libération ñëw ak ñun ci Covid 19 tur bi la ñuy rafetal noonu de corona la. nee na ñaareelu patient bi fi mu nekk nii fat nañ ko ci l'hôpital. Eh, tey nag fi mu nekk nii. tegal bu mujj bi français baa ngi nii indi na ko moo ko indi ci réew mi di waa man ñi ju nii nii nii ñi ñëw Dakar le 26 février. waa asset bi boo mat a lijjanti. ah 26 a <laughs> er, man man man man le bi ñu ne avion wàcc. waaw ah, xanaa journaux yi dañoo enquêtul doom loolu kay na ñëpp gëstu ci loolu. xaar leen ma ñëw foofu ñu yeggal. <laughs> doy na waar. parce que man daal dama dama xaw a tiit daal.